asalaamaaleykum mbokki internet su enquête 221 ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax baax tey nag ñu ñëwoon ci université Cheikh ante Diop de Dakar di fas yéene waxtaanee li nga xamante ne rek moom moo nekk lekk bi nga xamante ne gis nañ ko ci restaurant yi dégg nañ fi nag lu nekk waaye gis nañ fi tamit lu nekk lu ne fàng nag kenn du ko ñeex tax waraloon nag tey jii ñu ñëwoon fii ci biir université bi fas yéene waxtaan ak étudiants yi ñu faram fàcceel ñu rek naka la ñuy dundee ci biir étu ci biir université waaye tamit comme ni ko gars yi di waxee saako bu amul dara du xaw waaye biir tamit boo lekkul naanoo defe naa doo mën a concentré wu kon ñu daal di daago nank dugg ci biir université bi wax ak yi rek ñu wax ñu naka nañu dundee seen lekk yi ak yan problème lañ ciy jànkonteel. ñu ngi ziar ñu ñëwoon fii fekk la tey jii euh, nga doon euh, dem añi ji wala ngay waaj a añi ji ana lan moo tax tey euh, seen restaurant bi ñu leen di toggal togg yoo xamante ne tey xaw dafa xaw a doy waar ba nga xamante ne am na si ñoo xamante ne sax par ñàkk pexe moo tax ñuy lekk. ku ci mën a dem xooli tata da ngay dem ku ci mën a xooli dem bàjjan da ngay dem ana nan nga gisee tey ci lekk yi nga xamante ne ñu ngi leen koy présenté seen biir restaurant. waaw effectivement donc euh, dañ lay remercier encore une fois si opportunité bu ñu permettre euh, pour pouvoir vraiment s'adresser à nos confrères euh, sénégalais. Effectivement, c'est un, un, long, bon, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. surtout si le plan hygiénique donc euh, la restauration donc parfois cause problème quoi et cela aussi a lié vraiment à beaucoup de paramètres parce que les étudiants son nombreux mais aussi je pense que ne lu mu bëri bëri bëri bëri war nañ mun a am qualité hygiénique bu nga xamante ni vraiment muy étudiant bu nekk licence bala doctorat war nañ mun a accéder si si biir resto yi lekk tranquillement xam nga lekk lu nga xamante ni au moins su amul benn goût bi sax mun na doon lu nga xamante ni vraiment day am qualité mais pour dire vrai moom qualité bi demeewul noonu cela aussi a lié vraiment à a euh, bokk de problèmes yu nga xamante ni à chaque fois ñun dañ koy kaasa en tant que représentant d' étudiant dëgg ñun nag ay étudiants lañ aussi quoi dañuy dugg ci resto yi mais parfois aussi mun nañ sentir donc dem jënd añ du ñu yàqal dara quoi parce que nous sommes des étudiants nous sommes aussi des boursiers au delà de ça aussi donc euh, am na foo xam ne soo fa tollee également aussi vraiment Euh, yenn yi dootoo ko mun quoi. mu mel ni lekk yi ngeen ne lekk ci biir euh, restaurant bi nekkul loo xamante ne mu ngi leen di gënal déggal kee di tooñ naan ay sax ñii naan ay waasintóor ñi naan lu ne lekk la ñuy gis si plat yi nga xamante ne ñu ngi koy présenté. bon je dirais pas que ni ay présence su sax ay sax wala déet mais qualité bi tamit moom vraiment c'est déri c'est déplorable euh, quantité bi tamit. des fois c' déplorable mais balaa nga wax quantité sax na nga wax qualité ba pare mais qualité bi moom ñëpp teg nañ ci seen bët ni nekkul loo xamante ne euh, lu nit war a mën a lekk la bon ñàkk pexe la ak loo xamante ne loo si dara tu es à l' extérieur de tes parents à la maison tuni ne peux da nga mën a lekk da ngay bëgg nga lekk soo bëggul tam nga toog ak sa biir rek ngay bokkatu sa côté. Euh, comme li nga wax qualité hygiène bi si wàllu restauration étudiants yi. et je pense que loolu dafa nekk loo xamante ni euh, dañ ci autorité surtout euh, le directeur di kuddu war na ci jël ay mesures ñu yokk qualité hygiène bi. lekk bi ngeen lekk daal ci biir restaurant yi nekkul lu leen gënal. non gënaluñu vraiment gënaluñu. loolu moo tax nga préféré dem ci tata mu jaay la ceeb. woy mu jaay ma woy. instant bi ñaata ngeen di jëndee ay plaatu ceeb maa du métti ci yéen. plat bi c'est à cent francs quoi. tous les jours oui. naka nga gisee lekk bi nga xamante ne ñu ngi koy présenté ci seen biir restaurant bi nga xamante ne instant bii nii da ngeen di dem ba ñàkk ngeen di bañ boo ci demee ba lekk sax comme ni nga ko waxee bu weer bi soree la euh, tey naka nga dundee loolu ak boo ci wax lan nga ci war a mën a wax. ah vraiment man moom moo suma ci am benn effet walla yooyu noonu euh, depuis 2016 maa ngi fii dama doon dugg resto mais puisque instant yi maa ngi am bourse te maa ngi master 1 kii. des fois bu bourse si génnee mën naa dem si tata yi wala si biti dem jënd foofu ko waaye mm. saako bu amul dara du taxaw te boo lekkut war a dem en fi war a jàngi war a lecture maa ngay def say calcul du dem. évidemment mm-hmm. euh, lool lool moo koy firndeel saa saako bu deful du taxaw te ci mun loo ne da nga war a am cours am examen pression yooyu yëpp nga boole ko ak ñaaka lekk wala boog. Euh, nga boole ko ak ñàkk a lekk loolu du du mën nekk moo tax des fois tu es nga dugg ci resto bi nga lekk ak lu ci mën di am tamit bu nekkul léegi léegi tamit mais dans l'avenir loolu la mënti jot tamit ah xam ne la ma lekk la rek université la bon des fois ñun dañuy boole li ñu bëgg ak li ñu bañ yëpp ne euh, ñëpp fi lañ jaar lii lañ lekk kaas nañ ko kaasati ko mënuñ ci dara. muy loo xamante ne rek ba ngeen koy lekk dafa nekk loo xamante ne neexulee woon waaye ku ci am xaw am yokkute rek da ngay dem changer tamit sëb cin. waaw effectivement donc mun nga euh, des fois sax par exemple lépp si si bon lépp si humeur bi la rek man mun naa doon plus mun naa yor xaalis si sama poste mais mooy loolu je préfère rentrer dans les réseaux parce que loolu laa am bon jour boobu noonu loolu laa loolu laa sentir def quoi par contre mun naa bañ a yor sa xaalis bu bëri dem jënd jënd añ parce que mooy loolu loolu laa sentir mais bon le problème fondamental. problème boobu sax moo tax euh, ñenn ñi di xaw a faral di am. ay biir buy war a nga lekk loo xam ne bëgg koo lekk malgré que da nga war a dem en fi dem jàngi. waaw surtout surtout ça parce que euh, su ñu waxee condition sociale au niveau de l'université mën nañu wax wàllu logement mais surtout restauration bi parce que olof na na euh, saako bu deful dara du taxaw. il faut que ñu am benn qualité hygiène ci wàllu restauration bi pour mën a permettre étudiants yi tamit ñu mën a dund bu baax parce que loolu dafa bokk ci dund aussi dafa bokk ci seen santé aussi. mu mel ni nag c'est maintenant ou parce que bu ñu demee ba ay biir yu métti di ci am ay intoxication di ci juddu mu mel ni nag fi mu nekk ni jot na yéen étudiants yi tamit ngeen xeexal seen bopp loo xamante ne nit yi yàgg nañ koo wax te mënuñ ci dara. wallaay chaque jour que Jëkkërë ñu ngi koy xeex ñu ngi koy euh, ñu ngi koy fustiger mm. mais peut-être ñun suñu baat moo yeegul boog wala dafa yegg dafa mu yegg ñooñ dañu dañu dañuy tàngamlu waaw parce que ñii ñii ñu jiite actuellement nii nii nii nii fi lañ jaar te mën naa wax ne li ñu doon lekk moo gën fuuf ñun li ñuy lekk ñun suñu grand frère yi jaar nañ fi dans les années deux mille quatre-vingt-dix ba deux mille ñoom lañ daan lekk moo gën fuuf ñun li ñuy lekk actuellement nii pourquoi lan lan moo tax budget bi nee nañ budget à chaque fois day yokku mënuñ ma concevoir budget di yokk à chaque année euh, lekk bi di gën di dérisoire alors que au par auparavant budget ba bi fi nekkoon moo gën a tuuti ak budget yi fi nekk actuellement kon donc la faute à qui c'est ça que je me demande. instant bi boo doon lancer message la ko ngay mën a wax autorités yi nga xamante ne ñu ngi lay déglu. bon message bi may lancer euh, autorité yi à savoir le directeur général du COUD tout le monde sait que c'est un travailleur c'est un guerrier il est en train de rénover de carrément le visage de l'université à travers euh, l'espace euh, vert comme ni ngeen ko gisee nii mais aussi wàllu restauration yi parce que lui-même il se déplace pour euh, s'enquérir de la situation dugg si restaurant yi di xool yan condition ñi nga xamante ne ngi jiite université est-ce que ñoom ñi ngi lekk lekk bi nga xamante ne étudiants yi ñu ngi koy lekk ñi jiite université comme bon syndicalistes yi wala autorité syndicalistes yi wala autorités wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo proposé lekk bi est-ce que ñoom ñi ngi añ añ bi nga xamante ne tey ah. wala ñi wala ñi ngi reer reer bi nga ne yéen yéen étudiants yi yéen a ngi koy lekk waaw bon côté syndicalistes yi moom du mu si wax mais bon euh, côté administration bi gis nañ ki nga xamante ni moom mooy c'est le directeur général du kudd monsieur Maguette Sène à chaque fois dañuy gis mu dem jëw di lekkandoo ak étudiants yi dugg si restaurant yi di lekkandoo ak étudiants yi loolu dañ koy da koy faral di def aussi tamit day dugg si chambre yi di xool yenn condition la étudiants yi dund même le directeur du kudd des fois il entre dans les restos donc de façon euh, euh, euh et il mange aussi le même plat que les étudiants et loolu aussi vraiment ça encourage ñu war ñu ne carrément tey jii nii ñoom nekkuñu fi rek pour diriger ñu mais ils sont là en quelque sorte aussi pour partager ces moments de donc euh, tous les moments bon qu'il s'agit des des bons moments et des mauvais moments quoi. instant bi la faute ak qui moom la ñëpp di wax ñu lay wax rek sa kàddu gu mujj. waaw sama kàdd gu mujj mooy di rafetlu seen teewaay fii nii. Euh, bien vrai que ñun ñëpp benn lañ mais yéen ngi dégg li fiy xew mu leen di jaral ngeen jóg ak seen micro ak seen i matériel ñëw euh, gëstu si ba xam exactement li ñuy wax si biti ndax am na wala amul c'est vrai que am na vraiment fii moom euh, lekk bu jéggi dayoo moo fi nekk ñàkk pexe moo tax ñu koy jël ku fekkante ne am nga moyen ku am te mën nga woote sa kër mu ñu am lu ñu la envoyé da nga koy def bu ko defee nga mun di dugg ci bàjjan yi ñu lay di fa jënd et tout leneen euh, ce autre chose que je vous voudrais également souligner mooy vraiment euh, au problème des queues parce que rang bi day bëri des fois rupture yi dans les dans les restaurants da ngay nekk ci période de révision day am rupture ñaar ba ñett. étudiant bi bon tey jii nii vraiment mun na am possibilité ñëw cent cinq cinq minutes après mu dugg lekk palaayam dem réviser mais dañuy noter ay problèmes yu nga xamante ni des fois mun nga fi def ay une de temps doo accéder au réseau et je pense que c'était c'est un problème sax doo am li la boo duggee effectivement mun nga dugg fekkaat fa rupture mun nga dugg mu jeex ñu delloo leen si seen ticket yooyu noonu yëpp day am quoi Et j'appelle vraiment aux autorités de l'université vraiment de construire des, des, des, restaurants modernes qui permettra à tous les étudiants d'accéder facilement. Pourquoi Donc, si on démet au niveau de l'ESP Amnofa, des restaurants, c'est des, des étages. Il y a premier étage, deuxième étage, troisième étage. ça permettra aux étudiants vraiment d'accéder facilement donc à la consommation et d'aller faire leur révision quoi en tout cas c'est le message que je voudrais faire passer euh, donc à mes compatriotes mais en l'occurrence aussi des étudiants et je compatis vraiment cette situation qui est difficile surtout dans cette période de révision vraiment ñu lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay jaajëfal aussi di la di la di la ñaanal aussi vraiment que bon ngeen dem ba mu doon télé bu nga xamante ni c'est une télé ça sera une télé internationale quoi vraiment di di rafetlu bu baax aussi question yi parce que am na solo trop ah à chaque fois que l'opportunité euh, que j'ai l'opportunité en tout cas d'exposer ce problème-là aux autorités donc j'évite pas à le faire parce que nous sommes des représentants d'étudiants on doit veiller aussi au bien-être vraiment de nos consoeurs et confrères étudiants